asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baal àq ñëpp di ñaan yàlla di nu defal jàmm fu nu mën a nekk dellu soir na seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu moo di Dieng Touba 28 mi nam de ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi dafa jëm ci Cheikh Yérim Seck ak euh, lu nu ci laawaale ci ñi nga xam ne rek moom la ñuy mottalee wax ji waaye li ci ëpp rek ci Cheikh Yérim la jëm Cheikh Yérim Seck tey yoon da ko woolu woon jàpp naa wax ci Cheikh Yérim sax ak ki ma ko bëgg a mottalee yaakaar naa ne dëgg-dëgg du wax ju du du loo xamante ni euh, booy wax ci ñoom ndax koo xamante ni say wax amul maana euh, wax ji amul source wax la joo xamante ni amul diplomatie wax la joo xamante ni amul guu te guu wax mooy guu wax mooy dëgg guu wax walla cafkal wax mooy xalaat li ngay bëgg a wax te loolu xel moo koy def mbokk yi tey Cheikh Yérim Seck mii jàpp naa ne at yi ñu paase moo def déclaration boo xam ne kenn forcé wu ko kenn obligé wu ko mu ne man de tey jii la sama doom jóge ca mbuur ca kaso ba ñu libéré ko ndax xale ba dafa dañ koo jiyoon lu mel ni violence wéele mooy àgg ci kenn koo xamante ni xale la wala ci kum àgg te loolu du moom du negguleet ci xale bi moom ci boppam mooy Cheikh Yérim mi tëjoon nañ ko ci kaso ci lu mel noonu tuumaaloon ko ci ba tëj ko ci kaso ginnaaw yàlla dogal mu ne nag damay génn ci milieu bi nga xam ne mooy milli journaliste ak média li ma amoon ci Dakar ak te dama koy jaay ngir toog dama bëgg nag nit ñi maa ngi leen di baalu àq ñi nga xam ne doon naa bind ci ñoom di wax ci ñoom di wax ci réew mi baalu àq waaye bëgg naa tamit ñoom it ñu protéger ma bàyyi ma ma toog pour ma mën a <coughs> mën a concentré wu pour yar sama njaboot nag gis naa ne loolu moo gën ci man loolu ñëpp nangul ko ko ne lu rafet la loo xamante nii ndax ku doon dem ba ci yàgg mënoo àgg yaakaar naa wàññeeku du sa du sa gàcce du sa gàcce loolu ñëpp xawoon ko cee mel na lu ko ci mais ñi ko xamoon dëgg xamoon na ne dina del saat ginnaaw bi mu jikki-jikki benn benn liifur toog ci média yi ak nangam barki dem mu toog ci may moon a nduur fay ne man de dama amoon sax benn eh, naroon na nekk koo xam ne damay neutre bañ a wax ci état bu bees bi ak yooyu nara toog mais damay wax ba teppeeku tey wax nga ba teppeeku tey ñu ngi ni yoon woola ñu xañ la sa liberté nga dem xamoo ñaata lan lay téye dinañ la fa téye duñ la fa téye loolu xañ na mooy ma nga aju ca loxo yi ñelawoo mais Cheikh dimbali nit ñi ngir yàlla ñu mën a am jàmm ñu mën a am jàmm yow doo yàlla doo yonent kenn yónniwu la mënoo xam lépp mënoo nekk fépp loolu li muy jubul ci yow mooy nit koo xamante ni amatoo benn benn benn kii mu tuddati benn personnalité comme mënuma baat bi ma wax noonu benn digne wala personnalité amatoo ci nit ñi ndax nit yow li nga am te mu gën a foor ci yow mooy wax nit ñi di informé nit ñi loola la ci gën a foor mooy wax nit ñi dëgg bu demee ba la ngay wax nag la ci ëpp dëgg nekkatu ca mooy wax ji bu dettalloo bu dettalloo ki koy wax nag faw mu dettal te li ci gën a xa nekk sax mooy nga sosal nit ki di dox nit fii waxoo woon ne Ousmane Sonko mi élection am na benn xale boo xamante ni bu bi buñ ko bett ci otoom bu jigéen Moustapha Diop génn ne loolu ça fait longtemps 2012 la woon ca kii yu mag sàll lii nga wax déggoon nañ ko tëddoon loolu te loolu danga ko bind ci sa livre beneen bi ci des. seex yérim bu yàggul la ko paam ngañ yuti ne ko seex yow bi élection yi bëgg ñëw dangaa analyser ne Pastef du bokk ku bokk Pastef du bokk nga ne mësumaa wax lool nga dem ci Maymuna Nduur ne may moon a Nduur wax ko fa suñ doon te loolu ci Pape Ngagne nga ko njëkk a waxa suñ doon rey ba quatre vingt pour cent yëpp di faatu nanu àtte procès bi moom dañ ko war a àtte te lu ko jiitu bi la njëkkee laaj ci procès bi diggante Ousmane Sonko Adji Sarr da nga ne loolu ku ma gën a xam dossier bi amul waaye duma ci wax ndax parce que dama xaw a seene wu ndax lu mel noonu lan ma jàppe woon kon mënumaa wax ci sa bët ci sama sama bu ne unn di wax ci bu xeeñu jàmbur mais gémmañ goo xamante ni euh, wala koll boo xamante ni wala euh, deq boo xamante ni mën na li muy dunde mooy wax lu du dëgg biir bi nga xam ne bu naanee ba nag gu gujj gujaaral la muy naan lu araam la ndax lu araam la mooy ci deru jàmbur yi ci lay xëy ci lay gont bu ci yemoon sax nga ne waaw waaye di sosal gor yi di kiyal bi ko may mun a nduur iwitee ne ko yow daax mu ne liñ wax du man waxuma lii dañ may sosol dañ may nangam nee nga waa Pastef ñoo gën a mën a influencer nit ñi li nu aay mooy jël dëgg def ko aw fen jël aw fen def ko dëgg ñoom loolu ci leen aay te waa Pastef ci loolu la ñuy dox waaye yow mi nga xam ne doxoo ci lool tey ñu ngi nii nan la bàyyee ak ñi la woo dinañ wax ba xam li nga daan wax dëgg la wala du dëgg ñun moom bu dee dëgg amuñu ci benn problème Cheikh Yérim daal war na noo war na noo war na noo dimbali war na dimbali ndax yonent bi salaa salaam nee na ñi ëpp te gis ngeen mbokki sénégalais fii nu toll ñi ngi tàmbali kun ci woo bala ngaa génn nga jabolise kun ci jox maanaam convocation bala ngaa kii danga dem ci presse yi laya laya laya waxa waxa ba noppi soog a dem wuy ji loolu liñ ci jublu mooy jabalise nit ñi ak ñi nga xam ne waa ñiy liggéey ci yoon mais loolu xuux dàqunu wala xuux dàqul ñi leen di woo loolu ngeen di jabalisé tamit du jabalisation boobu du jàll wax ngeen pour nit ñi boycotter nit ñi nit ñi lànk ne ñii ñoonu doy ngeen bëgg a wax wane ne nag ñoom léegi dañuy tëj nit ñi dañuy jàpp dañuy kii waa dëgg la bu fekkoon de ñoom tëj dong la ñuy def sax loolu wax di yàlla baax na ndax ku jàdd yoon ñu tëj la mais état bii fi jóge moom <laughs> lim daan def passé xoolal xelal émages yi ñu ñuy torturer di dóor ci mbedd mi di def lépp liggéey bu amee wax de yàlla baax na bu fekkee fii rek la ñu yem baax na waaye ñin koy def mooy ñan mooy ñiy wax ñi sosalaate di dugg ci mbiru état bi di wax Cheikh Yérim Seck yi mu wax ci Maïmouna Ndour loolu ku nekk xam na ne kii loolu c'est grave ñii wax ñëpp nañ leen xool ba ci Suzanne Camara ba mu waxee li mu wax mu wax wax ju garaaw la wax dal ci kaw gi jomaay nag nee na man du ma may benn journaliste muy wax ci man loo xamante ni la ngay wax lu dëgg ñu lay bàyyi ngay continuer di dem Ousmane Sonko nee na moom it loolu waxoon na ko nee na di bind di bind ci nit loo xamante ni loolu du dëgg ku mën na dem bind waaye nag kuy bind na nga bindu leer waaye képp ko am gis nga ma jalgati man Ousmane Sonko man jomaay bindal ci man loolu amul benn problème mais seetlu loolu lañ leen di doyee ñun ñun sikki gars yi doyuñ leen mais liñ leen di doyee mooy alali réew mi ñuy luubal ñoom nii nag danoo dikk fekk état bi luubal ñi fi nekkoon ñu jàpp ne danoo luubal léegi nañ leen woo buñ luubalee ñu fayeeku leen alal suñu luubalut ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër journaliste yi nga xam ne ñoom itamit dañ leen doon partaase di leen jox ñu bëgg di nekk avocat gaaye ak bëgg a nekk ci presse di wax lu du tëgg loolu day jeex xam ngeen ni kii ñaari ñii ñu woowagul muy Cheikh Yérim leen wax ne moo ko wax bu fekkee looloo tax ñu woo ko loolu ko waxaat ñu woo bu suba kii bokk ci émission Kër Dof yi nu mu tuddee Kader Kader li mu wax netti leen ko boppam loolu na ko keneen wax ku ko waxaat bu subaa ñu woo ku Bah lan la waxoon Bah li mu waxoon ban woo ku bëgg ñu suba waxal li Bah Diakhaté imaam bu bëgg ñu woo waxal li imaam Ndaw waxoon Cheikh Tidiane Ndaw waxoon boo ko waxee bu subaa ñu woo kon kuy wax na nga xool la ngay wax peese say wax peese ña ngay waxal bàyyi xel fa say xel say wax di xale àgg. Bougane na moomu dëgg-dëgg dinaa ci wax waaye waruma ci woon a wax xawma lan moo ci lan moo ci jub ci li ma wax dinaa ci wax waruma ci woon a wax lan moo ci gën a jub <laughs> li tax ma ne waruma ci wax waxee Bougane da nga ci dut mën a jànge dara doo ci mën a ami benn xam-xam xanaa doo ci doo ci jariñu dara daal doo ci jariñu dara daal xanaa benn jariñu nga ciy jariñu dafa am benn eh, ikma bu ko xamante ni dañ koo laajoon ne ko waa yow lan moo tax nga réussir ni mu ne man li tax ma réussir mooy ñi échec ci ñooñu laay xool ba réussir am koo xam ne dañ ne ko waaye yow lu tax nga yaru mu ne man li tax ma yaru damay gis ñu réew ñi ni leen di def man loolu moo ma yaruloo damay gis ñi réew ni leen di def ni leen di toroxale di leen dóor di leen yuuxoo xale yi di leen sànni xeer ñu yaree ko ñooñu ñoo tax man ma yaru lu dëgg la <laughs> lu dëgg la moom ci ñi xamut ci la jàng waaye Bougane moom waxam ji wax dëgg yàlla doo ci gis benn te bu yàggee yow mii wax ci ñoom say wax noonu lay mel ndax nettali wax jàmbur wax ja daye bu mu am nga am ko waaye detteelu gu wax ja detteelu nga detteelu waaye buggaan moom vraiment xam nga ni mu waxee ci Ousmane songoo Bougane boo déggee ni muy wax sax da ngay xam ne wax ji benn njariñ amu ci benn benn njariñ benn baat daal laa mësa dégg laa dégg fan yi mu wax ko xaw am njariñ nee na seen moment bi ñu ngi ko tuddee sàmm suñu kàddu te loolu kat inspiration bi mu ngi jóge ci Ousmane songo dafa bëgg a wax ne Ousmane songo sàmmul kàddoom kon ñun nan jël baat bi ñu wëlbati ne léegi Ousmane songo sàmmul kàddoom ñun ñooy ñi sàmm suñu kàddu <laughs> mais woote na ak turu gëm sa bopp bii moom moo gën gëm sa bopp sàmm sa kàddu moom su fekkee loolu am na ah bugaan dëgg-dëgg loolu baax na beneen bi ci des mbir mi ñu woo ko yoona ko woo mu ne Ousmane mënoo maa kii yow da ngaa nangam da ngaa nangam dikk ba noppi li buggaan indi interdiction baaxut man buggaan lu nekk boppam la ci wane lu nekk lu nekk man ku ma soxla xam nga fi may fekk mais ñoom fu lay fekk ne ba noppi ne ñeenti béréb la ñeenti béréb laa am ku fa dem nag ma fa gis dafa njëkk sax ne euh, ñoom ñëw na sama ñeent sama béréb yi gisuñu ma waaw kon am na foo newoon te fenn dem nañ des médias gisuñu ma dem nan fee dem nan nàngam dem man ñeent birab laa am sama bureau fi may liggéey ak sama ñaari kër jarul woon ñaari kër sama kër rek boo ne sama kër rek <laughs> boo ne sama kër rek ndax xaj na nit ñi xam ne waaye ñaari kër yi am na lu muy wund beneen bi ci des heure yooyu ku fa dikk man daw ma ku fa dikk di ma gis mais mun noo xam ban heure te nit ñi xam nan heure bi fa may nekk sama biro laay nekk te xam nan heure ba ma fay nekk di walaay du ñëpp a xam heure ba nga fay nekk D-Media li nga am lépp D-Media moo ci gën a siiw ku lay seet wax dëgg yàlla D-Media dong la war a njëkk a dem ndax benn bu fekkoon danga ko ubbi bàyyi ko ay nit nekkoo ci wala xamuñu ci wala nangam mais ku la tudd tudd la foofa sa béréb la dem nga fa toog nga ñaari at ak doo fa dem ak yooyu yëpp loolu wax de yàlla boo fa du demit loolu mën naa ump ñi la doon seet ñi la doon seddaal li liñ bëggoon gis la fu jàpp ne nag bu nu fa demee gis la fa dinañ la fa gis xanaa duñ dem ci mbedd yi nag naa buggaan la nii woo wala ci nangam beneen bi ko ñaareel nee na Ousmane Sonko nangam xoolal waxin wi waxin wi sax dafa dafa xawute kii gis nga politique jërul xuloo yéen da ngeen di politique politique leen rek ci cadre politique mais enanteeg ñaananteeg man li ma am ak mosoo jiite nangam ak yooyu yëpp ngay wax Ousmane Sonko mësta jiite yooyu yëpp nga wax mais tey ñi moo jiite réew mi mooy premier ministre mooy premier ministre man bëggumaa gisanteeg Ousmane song bëggumaa yow de wax de yàlla bëggoo gisante Ousmane Sonko waaye li ngay tudd Ousmane Sonko de Ousmane du la ko tudd nag moom bugaan wax dëgg si yàlla li ngay tudd Ousmane <laughs> Ousmane tudd la ko moom nag bëgg nga koo gis ko mu bëgg na leen a gisam de waaye li nga koy tudd beneen bi ci desaat bugaan dafa tënk wax jeneen ci wax ju am solo dafa wax ne yow wax ngaa wax ban jox la réew mi ma ne ko ah yow de bugaan yow wax ngaa wax a wax ba xañ sa bopp <laughs> wallahi wax nga ba xañ sa bopp réew mi te yëgoo ko sax te buggaan euh, nu mu tuddati euh, nee na Ousmane Sonko boo génnee midi man ma gidi midi cinq weddi li nga wax te bugaan day wax loo xam ndax nee na woon Cheikh Dibo bi ñu ko wonee rapport bi woon nangam Cheikh Dibo dane du ñëw man lu ñàkk fekk te Cheikh Dibo soo nekkul woon ci réew mi far sax yu mel nii nag waxi buggaan daal boo ci bëggee jariñ erreur yi nga ciy remarque daal yooyu moo lay jariñ mais loo ci mën a dolli ko lu ci rafet la alxuraan waxoon ne bu nit waxee seet leen la ci gën a rafet mais lu ci gën a rafet moom ak lu ci gën a baax amu ci mooy kay ci lu ñaaw li kay ci ngay jël wala lu lu baaxut li ci ngay jël nga jariñu ci jariñu gi nag mënta paase lii ma wax benn waaye bi ñu ko laajee ne ko lan moo tax nga nga réussir nii mu ne damay xool ñi échec ma jaar ci ñoom moo tax lan moo tax nga yaru nii mu ne damay seet ñi réew ñi ñooñu moo tax ma yaru waaye waxi Bougane moom noonu dong nga ci mën a jariñoo waaye amul beneen côté boo ci mën a jariñoo eh, nee na Ousmane Sonko man du ma géer du ma ragal ah buñ la wooyee nga jël xaw def ko xale yi génn leen ci mbedd man du ma ko def waaye léegi Bougane lu ci indi huit heures lay wuy ji am na ngaa bëgg gaay gunge la <laughs> loolu koy jëru ko yow koy wonan la ko koy lan la koy demal waaye huit heures trois trente lay génne sama kër pour <laughs> dem